bisimila dal leen ak jàmm mbokk internet yi jëmmam ak taaram taxoon nañu bari sopp ko lool ba mu jaral góor yu bari ñu topp ci ginnaawam di daw waaye ci boobulee xel ki daw ba jot xolub jigéen bu taaru bilee di nabu mooy góor góor góogulee di Koné moom ko ne ci tur biñ ko gën a xamee nekk na ku siiw loolu ci wàllum bi bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne ñu ngi ko rootee ci waa limametti.com moom Mamadou Koné moom lee mooy dakk bi gi nga xamante ne moom moo gën a jege lool ki lee di Wally Seck maanaam bokk na ci ñi nga xamante ne doomu doomu Thione Ballago Seck bi moom lay gën a dégg te ba tey moom moomu lay di kone liggéeyam bu yaatu ci wàllu faramaren kenn wu ko jot na amal ab liggéey bu am solo ci labelu Wally Seck bi moom moo ko doon xelal ak a gindi laata muy nekk manager waaye bu du loolu sax Mamadou Koné jot na bokk ci ay organisation yu mag yu bari te bari na lool lu doon dem ci ay ndaje international yu jëm ci wàllum showbiz ak culture waaye fii ci biir réew mi ñëpp ràññee nañu ko ci ànd gi nga xamante ne mu ngi koy ànd ak Wally Ballago Seck li koy firnde firndeel nii mooy saay su ne boo jotee seetlu ci bépp nataal boo xamante ne jot nañ ko publier ci moom lu ci ëpp mu ngi dend ak gunay faramaareen gilee daanaka ñoom ñaar sax tey jile ñu ngi mel ni ay mag ak rakk bu ñu sukkandikoo ci kàdduk kenn ci jege ñaale Wally Seck yi ki léegi Mamadou Koné moom moo nekk daanaka ki mu gën a wóolu eh, félicitations. Madame. On revient, on